balaa ngërëm ma may ma ma ñaanal suñu sëriñ suñu yaakaari tey ëllëg sëñ Cheikh Saliou Mbacké bi nga xamante ne moo waral lépp tey euh, ndax sëñ Birane li ko booleeg sama borom kër mooy sëñ Saliou euh, kon loolu googu lay doxal ba léegi ñuy ñaan yàlla kóllëre bi sax dàkk ngi koy gërëm ci taxawaay ak ni ñu jàppalee seen njëriñ ndax moom ku ko xam-xam ne homme de te am na mbooloo mu bari sama borom kër nag yàlla dogal na ni IGE la muy inspecteur général d'État mënta politique mënta am mouvement mënta bokk fenn moo tax ku am yéene liggéeyal ko la jàppale président Macky Sall mu boole laa looloo indi suñu taxawaay tey ñuy delloo njukkal sëñ Birame Gueye mi nga xamante ne dafa ñëw ànd ak ñun pour ñu liggéeyal président Macky Sall pour ñu falaat ko bu baax waa Touba yëpp di ndax ñun fii lañ bokk janatu ma xawaar laataa ma bëri ma di jël soxna sama baay jëlee ma ni fii kër Cheikh Matar fii la dalee fii la ñu fii la xamee lépp. may gërëm ñëpp nag ñi ma àndal di gërëm sëñ Matar Jaxate mi nga xamante ne mooy denc sama mag bi tëjee mi nga xamante ne mooy yoonu APR fii maak rakkam mi soxna Fatma nekkuñu ñaar kenn lañu muy lu yàgg ci jàllal du mag waa bu njëkk ba di gërëm ñi nekk ñëpp di nuyu di sant di gërëm sama njëkke doomu bàjjen biir ma muy Fatou Wade

di wax waa Touba nan jàpp bu te xam ni lu leen naqari woon euh, léegi moo jeex ndax dinañ jàpp léegi nañu ñaxtu yëpp te dinañ ci jàpp bu neexee yàlla soxna Binta Dieng ñuy sos fii avec yi ñu jàppale jigéen ñi ñëpp liggéey te ndox yi bu soobee yàlla tamit dinañ ci liggéey am ñi ci war a liggéeyal dox ci liñ ci war a dox ba santaan yëpp seen euh, coono wàññeeku naa mënuñoo matale lépp sax waaye dinañ def li ñu mën bu yàlla ñu ngi sant bu baax di leen wax ngeen jàppale président rek loolu doomu lañ lay ñaan te di ngeen xam ni président xelam ak xolam yëpp Touba la am Touba rek la bëgg ci àddina moo tax nag yéen ñi na ko war a jàppale ndax li muy def rek xëy na communication bee des waaye mi ngi ci biir Touba mi ngi ci forage yi mi ngi ci séeréer mi ngi ci lu ne nee naa ko ilaa Touba rek ñu jógee Dakar benn loolu rek amul fayam te dina permettre activités yi gën a baax gën a gaaw ñu ngi leen di ñaan ngeen jàpp rek nga xamante ne xëcc bu dagul dikk te bu soobee yàlla di ngeen ci xam dara wasalaam maa ngi gërëm ñëpp di nuyu ñi ma àndal bi tax dafa xat ñoom ñëpp tey laa leen woo ñu bàyyi seen yitte yëpp ñoom maa ngi leen di sant di ma sëñ biir ma boole woon ak sëñ Birane Gueye mi noonu la ma soxna day jóg nii ni ma maay moom mooy man mooy liggéey euh, mu boole maag moom ñuy liggéey mi ngi nii indi délégation bu mag mu boole maag Khalifa Diana boole maag ñoom Goura ñuy liggéey liggéey bu am solo ci njaareel ma leen di sant di leen gërëm maa ngi gërëm soxna Assou Ndiaye soxna Niang Khady Samb Aminata Fall Noura Ndiaye Yacine Sall Mama Diohane Seynabou Gueye Diewo Mbaye Fatou Diop Anta Diop Absa Gueye Khalifa Diana Seynabou Ndiaye Marème Diop maa ngi gërëm ñëpp maa ngi gërëm sama jëkkër Thierno Diop di gërëm sama mag Modou Boussa Diokhane di gërëm ñi nga xam ne bàyyi nañ seen yitte yëpp ñëw ànd ak